ay ca doore kox buggaan ngay dani si tribune yéene kaay moom njiital gëm sa bopp nee maa ngi woon sa zone ñaay de foofee laa dem fekk fa ay baykat yoo xam ne nii dañoo gëm seen bopp ay baykat yu nga xam ne nii daanaka ña woon sa coono ba ma dikk war a séddox ñoom coono yi njiital gëm sa bopp mooy wax ne si tribune yéene kaay fii si zone ñaay fekk naa fi ay baykat yu gëm seen bopp baykat yoo xam ne nii jàppale rek la ñuy xaar ci nguurug Sénégal baykat yoo xam ne nii nguurug Sénégal xamul ni autosuffisance a mën a bay njiital gëm tey de yootul direct news 24 heures l'indépendant yéene kaay moom bugaan ngay dani nee na béykat yi ma fekk fii de yittewoo nañu ku leen taxaw seen boolu jàmbat fees na dell nag te dara waralu ko lu dul politique bu nga xam ne ni nguurug Sénégal def seen laj ci wàllu mbay mi état boo xam ne ni mu ngay dëkkee làmbatu fu mu romb yëkkati poussière ba te dajul dara zéro résultat laa la wax ci wàllu mbay mi dama ni soo leen amul solution dikk leen laaj ma ma jox leen solution bugaan ngay dani si la mandat nee na ay solution bi du leen na lu li nga xam ne mooy tribune yéene kaay ne dikk leen nag ma wax leen lan mooy AGESIP kuréel goo xam ne centrale d'achat lay doon pour agriculture ay organisation paysanne ñoo koy composé elle sera chargée d'acheter waaw jàppale baykat ngir ñu mën a jaay seen production agricole ñu ne déetawaay buggaan ngay dañu nii loolee bu ñu ko taxawalee dañu dellu ginnaaw wàññi wala régulé importation bi lii nga xam ne dañu koy jéggaani biti réew dañu koy régulé te loolee yëpp nag dafay fekk AGESIP boobee joxe cutis boo xam ne si la sukkandiku ngir xam li fi des si production bi ak li ñu soxla ngir jéggaani yootul grand place nee na Bougane Gueye Dany yemul ci mbay ma de déedéet ndax tournée économique boobee yóbbu na ko ba sa faas booy nee na fii de man njiital gëm sa bopp fekk naa fi ay nappkat yu nga xam ne nii boolu jàmbat lu fees del la ñu enu yéen waa faas jaale seeni doom yi des si mbëkk mi Bougane Gueye ne message bi nag yéen état yéen état nguurug Sénégal yéen ko moom nee makeex sa gouvernement fii ci faas booy de fekk naa fi ay nappkat yu sonn lool nag état xamal ne kon fii si faas booy fekk naa fi ay nappkat yoo nga xam ne seen yaakaar tas na seeni doom des nañu nee na dara gënul metti na nga dee la ba noppi ñu jàppale tëj ndax nag ay ndaw yu doon manifester jàpp nañu leen laa la wax te lu leen metti woon du leen lu dul bëggoon ñu seeti seen i mag ak seen rak ja des sa ndox ma lii rekk moo leen metti nag damay ñaan rek nga bàyyi leen ñu génne waay waay bàyyi leen ndax xolu ko muñ bu feesee tuuru dañoo muñ rekk nag ba seen muñu kaay yegg si daj dëpp gi moo tax rek ñu génne doon manifester lii rekk la nag te nag état nag neexul ba neex waaye face booy géey nappkat ñoo fi nekk bu ñuy demee ba géej gi dara waralu ko nag bu géej gi amatul yow état yaay dëkk di signé ay licence de pêche ay bateau ñu ñëw yulli suñu géej gi bu ñu demee ba mënatuñu napp jën nag lu ñuy def lii rek moo tax ñu àbb géej gi ne dañuy mbëkki ba dee sa nag bugaan ngay dañu ne kon lii laa yóbbantee taa man candidat déclaré bi laa la wax beneen candidat daa di waab sa géew ba laas yéene kaay ne waxal candidat xale baa ngi nii laa la wax la candidat de l'espoir Anta Babacar Ngom lay wuyoo yéene kaay bi nee na présidentielle 2024 Anta Babacar Ngom nee espoir rek laa woote yootul 24 mooy wax de nee na xam leen ñi wax ba ndaw nga am tey la politique réew mi suñu loxo la war a tegu ñun ndaw ñi nee man Anta Babacar Ngom politique bu yees la andi politique bu àndul benn violence politique boo xam ne ci xam-xam la koy teg politique boo xam ne c'est avec la tête et non avec les autres parties du corps laa la wax nii xam-xam rek la ñuy ci politique bi Anta Babacar Ngom nee alternance pour la relève citoyenne Anta Babacar Ngom mooy wax ba tey de nee na sama programme si juróom-ñetti axe si rek mu ne ma laa la wax charge salariale ak impôt yi nga xam ne moom la teg ci société yi nga xam ne nag ñooy embauché ndaw ñi ah ku taxawu ndaw yi ñu jàppale laa la wax Anta Babacar Ngom nee na boo bëggee dégg-dëgg tànneef bi gën mooy ndaw ñi man maay candidat ndaw ñi candidat espoir la relève man Anta Babacar Ngom lay wuyoo keneen ka doon woote te tey ji ñu mujj koo écarté moo di Ousmane Sonko wax Pastef ba liggéeykat yi mooy bokk ba sàmbati sa dem mbaadu nee bu dul Ousmane rek laa la wax di sunu plan B ah plan B waaw bu dul Ousmane Sonko di sunu plan B Diallo Diop mooy wax de nee boo leen tëjee buntu Ousmane Sonko ñu ubbi fenêtre bi laa la wax jàllale sa sunu plan B dañuy bokk de direct news nee na est-ce que tam doo leen bàyyi mu sedd rek ndax kat Macky kat mottali na yéenam ci yéen la Ousmane Sonko woote defante ñu daal koy rajjee Sonko fippu def waxtaan Pastef ñu daal di koy tas leader yu bari ñu jàpp tëj direct news kon Macky enterre le projet gas na suul waa Pastef ak seen projet laa la wax ña amoon projet kay génne Ousmane Sonko ba tax ñu taxawal kon seen coalition 142 universitaires yooyee Vox Populi nee nañu dugg nañu ci kaaraapitu Samba Lawbe jël nañu avance boo xam ne ni dootuñu xam fu ñu koy sëgg bëri 142 universitaires yooyee nee nañu ay boroom xam-xam leen tey ji 1220 politique 167 exécutifs territoriaux 292 parlementaires dama ne ku mën am na si sax ay religieux yu nekk ci biir nee na ñu yéen nee ngeen ay borom xam-xam leen seen xam-xam jaaxal nañu nag foo leen ko teg yéen taxaw noonee yaay ne Ousmane Sonko da ngeen koy génne critique yéen kaay ne yooyu de gaa tontu nañu leen nee nañu leen seen xam-xam si boppam dañu laaj ani fan ngeen ko teg tey ji daal yéen a mën a taxaw di sàkku ci président Macky Sall mu libéré foofu Maymuna Sisoko xumma jël na wàllam ca xew ba yootul tribune yéen kaay nee na 142 kay dañuy xaar nee na ñooy universitaire lañu waaye bi yee ñu xam ne ñoom universitaire yooyee dañu créer une coalition ad hoc sur la mode d'un vaudeville qui ne dit pas son mooy wax de nee na yow Serigne Diop yow ak say ñoñ wallaahi da ngeen maa yaakaar gu tas la ñaam si yéen xam-xam bi ngeen doon woote ndekete yoo da kësal moo rek ko naanu leen ci dara yow ak fi lii xanaa kon laajtew leen seen ba faw laa la wax nii tey jii a mujjee xeeblu Maimouna Sissoko mooy ni xam ne ci tribune yéene kaay ma geestu beneen candidat ci l'observateur Aly Ngouille mooy wax de Aly Ngouille Ndiaye nee bu Benno Bokk Yaakaar di de man xalaatuma benn yoon mu bañ a doon man je pas de raison de penser que le candidat de Benno ne pas moi Aly Ngouille mooy wax de waaja mu ngay dëggal boppam nee na Bokk Yaakaar sañu ñoo tànn keneen ku dul moom ñu askan wi terrain synthétique nee na terrain synthétique entièrement financé et offert par l'homme le kaay nii inauguration bi foofa sànni mbàtt mu tak laa la wax ni nee ci inauguration boobee daf ca woote match de gala bu doxoon ci diggante ay légende du quartier ak waa génération 2002 El Hadj Diouf a nga sa woon Khalidou Fadiga mi nga ca woon Henri Camara ma nga ca woon Alassane mi nga ca woon ay ministre ay acteurs sportifs ay ay musiciens dama ne ñëpp la wax ñoo wuy si Ilimane Lam ma nga xam inauguration terrain de liberté 6 Paris réussi pour Iliman Lam waa ji si boppam dañu ko wuyu si dëkk si dëkk bi jariñ dëkk bee ko gën yéene kaay ni Iliman Lam invite les opérateurs économiques à s'approprier ce modèle dugal sa loxo ci dëkk bi amal njariñ dëkk bi nee lii la woote magee si le point magee sur le point beneen homme d'affaires daal di dikk lay wuyoo njiital Ecotra préférence nationale nee réew mi de gisuma ku fi xamul Abdoulaye Sylla laa la wax doole bu sëriñ Fàllu Mbàkke tabax bu sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke ñu ne deetewaay mu taxaw benn caméraman bu nga xam ne ni nekkoon na ci ay tolof-tolof ndax tànk bu doon waaj a yàqu ñu ne deetewaay Abdoulaye Sylla nekkoon préférence nationale cinquante pour cent lii rek laa woote nañu dimbali laa la wax privé national bi su ko defee Sénégal gën a mën a suqali gis si boppam le point yéene kaay ne lii rek moo tax Abdoulaye Sylla bu Ecotra mii am ñu taxaw ne faw nga samp sa Yacine dafa tàngal ndox ba mu tàng fekk wu jam tëdd sa néeg ba di nàmpal doomam sa kaw la lam waaw doom ji un an rek la ndox mu tàng ba la jël xëpp leen ko laa la wax ba ñu ko tegee loxo laaj ma lu mu wax nee na aawa yaay mii de kon moom ñaareel la nee na aawa yaay mii laa la moo tax ba sama diggante maak sama jëkkër neexatul benn yoon waaw nee na aawa yaay moo yàq sama diggante la maak sama jëkkër lii rek moo tax ma def lu ni mel <laughs> waa baax na